macha comme ni ma leen ko waxee neena naa la puissance du Moussa Baye ben yon ba tay ma tok ak Mama Lamine rek neena tay duma ko may 0 virgule rek duma ko may euh Mama Lamine tay ñu seet si la waa El Vision ñëw seet la sa keur non rafetlu na lolu deug yàlla rafetlu na ko torop tok ba télé ñëw sa keur sant na len wax deug yàlla gërëm len amul len luma len wax. waaw ñu naan Mama Lamine Mama Lamine Mama Lamine turam egg fo xamne egg fa Mama Lamine bëgg naa xam lolu tamit lan moko waral. lolu mbiru yàlla la rek. yàlla mo mooy xool lu ko neex mu def ko ci jaam bi eh, sant yàlla bu baax a baax pour man. Eh. ñu gis la allah ngay def combat combat bi gaaw trop loolu tamit dañ ko ko préparé bu mu am. waaw ah, comme ni ma la ko waxee rek vite fait vite fait bien fait ah, ñun ci loolu la liggéey ay lañ wax ma supporter dem di nekk foofu di def loo xamante ni wax dëgg yàlla sant ko daal. Maama Lamine ma gis euh, sa combat bi ni nga ko préparer muso ko préparer ci combat muy euh, ci entraînement muy ci physique muy lepp euh, ci am doole ak ci ay supporters muso ko préparer ci combat tay ñu gis tay nga daal di taxawal lool lu waral lool ah, lool bëgg bëgg yegg ben niveau bi rek bëgg yegg ci kaw bëgg bëree gaay yu mag yi ponk li ñuy tuddoo lool mo tax wax dëgg yalla borom bitigu mbaga bo gis magasin mo ne ci xolam tam wax dëgg yalla bëri ñi ci kaw moy limay neex. waaw ndax booy yi ñu may jox yëpp man du seen morom làmb tëre rek mais ñoom ñëpp duma seen morom billaay wallaay gis euh, xale waa jàmm gën xale waa Sicap xale waa Tali Maam Jaara waa Tali Karo ñëpp nekk sa ginnaaw Mama Lamine tam bëgg naa xam tamit lan nga liggéey tamit ba xale yooyu yëpp euh, daal di lay ah, ma dara àdduna moom lépp taalibe la rek d'abord waaw ah, taalibe moom mooy lépp pour man liñ gis ci man bu bëgg ma loolu xaw ma ko parce que yàlla mooy moo moom ñëpp mooy xool ñu ko neex ñu boole leen xëy yàlla moo ma boole ñoom moo ma boole ñii rek ñu nekk suma xama waaw comme fu ma yi dem rek ñoom laay gis te tamit xew la gis say mbokk dafa neex rawatina say deret eh, ñoom ñëpp dañuy sonn ci Mama Lamine à cause de lan jox ma leen cent franc billahi bi combat bi desee ay un mois fi lañ nekk fanaan ñëpp bàyyi seen liggéey ñëpp war a liggéey yoriñ njaboot yëpp bàyyi seen combat yi xama nga bàyyi seen lépp topp combat bi ba combat bi finalement fii la yàlla def mu mujjee. Mama Lamine ñaata victoire nga am ci ci ci démb. man am na huit combats six victoires deux défaites. deux défaites deux défaites laa am six victoire loolu laa bëri ci làmb huit combats. waaw maama Lamine euh, ma gis euh, mbër yi nga xam ne euh, maanaam dañoo agressif ku ci mel ni Siteu sa doom nday dafa agressif maanaam bu demee ci làmb man maa ko wax Siteu daw ma si saala yaay ndeex ma gis la tey mbër yi demee li nga xam ne mooy stade dañuy daal di wane seen bopp daal di dëggal seen bopp wan na ñoom ay mbër lañ dañuy def li nga xam ne moo nekk agressif maama ñu gis la yow doo def loolu pourquoi doo def loolu maanaam ñi nekk sa ginnaaw moo tax ñoom ñoo la poussé wul pour nga def loolu wala yow lan moo la poussé ba nga xam ne dangay toog rek doo wane sa bopp non benn man du ma niti coow te bëgguma coow man mu gisee ñuy coow sax ay ree lañ may def yee mais Siteu du moom du ak du moom mooy agressif du ñu muy àndal ñoo agressif c'est que bëgg bëgg moo sax si xol Siteu ñu ko bëgg dafa am loo xamante ni buñ ko gisee ci moom rek mënatuñ téye seen bopp manam agressif bi may wax uh, boko dege manam dafa ne and uh, ak li nga xamne muy uh, njaflaf ci te fum mu rek ngay xamne bay Fall bi kat tëll na day and ak li nga xamne ne njaflaf dal yo la moo tax wane woo te mu nek sa dom da ngay and ak mom gude ba cog ah non tamit ñoo njaflaf de duggé ci lamb ji pour man yow ci benen sens nga nek sax non non sens bi may wax <laughs> mama Lamine bu ma dugal dégg nga <laughs> mama Lamine la leer non dugaluma la sax dugaluma la c'est-à-dire xam nga wax bi mo leer won sama bop rek ma bugal la leeral aussi agresif agressif bi boko ko manam euh tay sita tay bu duggee si combat da nga gis muy daw di def xam di di feul di feulalé xam di accaayam ka aji wa di sané di wëccaxu euh, loolu lool motax yow lan motax yow lool do ko def ah mais tamit moy lool xam rek ñun mom ci ci côté bobu lañuy yëngu ñun ñun mom dañoo dañoo dañoo mën dañoo mën li ñuy def mom wax deug yalla d'une part dañuy dugg ci lamb ambiance def lu ñu war a def tous tous mu neex pare bëre bëre bu nice yàlla may ñu ndam ñu ñibbi wala yàlla may ñu defet ñu ñibbi parce que ñun làmb defet ak ndam lañ yemale ay Baay Faal lañ wax dëgg yàlla waaye côté boobu moom laay damay fecc ba mu neex te damay yëngal ba mu saf ngay préparé sa carrière ah instant bi ban mbër ngay laaj. instant bi maa ngi préparé sama carrière ci ba ma commencé bëre foofu laa ko commencé préparé ba fi ñu yàlla andi fii tey ñu yegg si fii ah, xem nañ ko loolu nag waaye ah, mbër bi ma war a bëreel nag pour man xam na boppam quoi. kan waxuma leen mais dinaa la citeel ñaar yoo xamante ni bu ma tëddee sax du ma nelaw ndax ñoom muy Boy Bawal ak Diène Kairé. Diène Kairé men. doomu Kairé men. moom laa la wax ak booy bawal ñoom ñaar rek. saa ñoo tere nelaw ñoo ma te yow boo dajee ak ñoom instant bi ku ma ci dajal kay li may def sama li ma def sa rax rek laa lay def. je tàgg je koñ et je gañ. macha allah ba tey eh, ñuy ànd ak maama lamine si émission yaay kan ba tey nee naa duma bàyyi benn yoon ma xale borom jiit bi nee naa sama jiit rek laa yor di fi taate ba tey may ànd ak maama lamine rek si samay question maama lamine instant bi nii démb gis nañ la nga bëre macha nga def li entre maama lamine kan moo nekk sa ginnaaw ak kan moo la jàppale ndax mbër mi euh, mbër mi nga xam ne surtout nga nekk ci banlieue bi euh, du ñàkk nga am koo xam ne mooy nekk sa ginnaaw moo lay jàppale ndax dafa metti préparer combat dafa metti ndax mën nañ la fay xaas boo xam ne yow du la njëriñ dara. c'est vrai c'est vrai loolu am na mais ñun gaa boo ñu la waxee am na ñu jàppale rek dañuy wax loo xamante ni bëgg lu ñi ñu la ko wax amuñu ñuy jàppale am na ñuy soutenir nag nekk suñu ginnaaw di ñu may xaalis eh, mais ñun làmb fay ñu dara may ñu dara lépp lu ñu loolu may lu ñu ñooñu may bu ñu ñëwee si bis bi lañ koy defaat waaw c'est pour ça làmb dafa dafa métti fii ñu fi dëkk yor xaalis bari na mais duñ la jàppale dañuy toog seetaan la xam nga di xaar bis bu rafet. te loolu du àdduna li la seen la yàlla jox ci ngay dimbali doomu doomu doomu doomu yàlla yi ngir yàlla di la dollil mais boo toogee fi nga toog yor sa li nga yor waaw yaa fay naaje quoi. mais ñu est-ce a ngi dem ci ñi xam ne ñoom ñoo nekk fii kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii di leen wax li nga ne mooy seen besoin yi. fii kilifa bu ne dañuy dem sa kër mais balaa ñoo dugg sax dañ naa ñu ñëw fi wala ñu lay demander loo xaw ma ay. lan lañ lay demande je pas ñi leen ëpp daraja ñu ngi fii ci àdduna bi te saa mu demee seen kër fekk leen fa te bu ñu demee barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu fonk ñu comme ni ñuy téewee seen doom te ñooñu ñoo leen ëpp daraja foofu te wanuñu ko kenn alal du faj dee gàcce lay faj ñu la yàlla jox dimbali ci jaamu yàlla yi man awma dara mais dañ may may may mayawaat te bëgg naa am sama rêve mooy dimbali suma yaay ci situation yi mu nekk utal ko kër goo xamante ni moo xam mu boppam ma dugal ko fa li ma koy mayu nag sama làmb la te maa ngi ciy concentré bu baax a baax a baax te dara du ma ko yàqal. est tey boo xëyoon tey ñu ne la Balla ngi nii ndax dégg naa temps yi xale yi naan Balla dafa Balla jeexal de. Balla Gaye de non man moom je n'ai aucune part amul lu ma koy wax quoi wax dëgg yàlla bëri na ci làmbam yàlla may na ko yàlla na ko ndam li jëkk mais man Balla Gaye ak Sa Thiès considéré ma leen comme ay mbër parce que nit man man man man dama bëgg doomu adam mais ku tutal doomu adam rek man naw nawlootuma la ci aduna Sa Thiès bëri naag si te daan ko ba pare amul lu mu ko yakul lu ne mu diko wax ay kilifa lañ magum jëm tok fi di wax ay dañoo toj seen ak dañoo def ci te loolu yëpp amul dekkal ci ta fu mu dekkul di yak deram di wax quoi que ce soit te jobé wuñ non mais li ni ni moo tax man nawloo ma leen ci dara dara dara man maa ko wax man maa ma leen Balla Gaye ak Sa Thiès considéré ma leen comme beur masha allah man nee naa puissance lii rek laay wër na dama bëgg mbër moo xam ne da nga am fit dama bëgg mbër moo xam ne da nga sañ dama bëgg mbër moo xam ne su ma dekkee sama micro li ma bëgg tamit nga koy génne Mama Lamine instant bi lan ngay tàggatoo ak waa El Vision Médias la ngay tàggatoo say xarit ak say mbokk ah, di leen sant di leen gërëm rek waaw di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla lépp lu ngeen bëgg ci seen télé bi suñu borom defal leen ko lu kawe seen ñott ndax fii lépp lépp ci benn la tàmbalee te benn boo gis ñaari ci topp tu vois voilà maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla defal leen beaucoup de réussir daal seen télé bi defal leen ci jàmm fu ngeen bëgg a yegg mu yegg fu ko raw mu kawe seen jot eh, sant naa leen nag gërëm naa leen di leen wax Picel Lovin xaama ni jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba kuy donn ma samba jeey maama guy galis naay waliyaat ney waay waliyaat ney maama kuy waliyaan dangay daan day saan mbaa ñu daan laat fii la ñu juddoo fii la ñu yarooy fii la ñu màggee jàmm gën gi ay waay amuñu lu dul jàmm gën si gaa mbaaw maama kon yéen ñi bëree di drapeau yi yéen a ko moom gaañi Forever Baye Fall yi mbaraxi kir kir kir kir kir mbaraxi jër. et eh, loolu lu bees la nag après lañ ciy waxaat. nee naa loolu sàcc naa ko ndànk rek macha allah saa su ne rek nii laa koy defee ngeen ànd Sista Zeyna la puissance nee naa àdduna lépp teranga la nee naa waa El Vision xeebuñu benn événement nee naa jaaykatu socc bi sax dama koy jël teg ko ci kaw uh, table bi Mama Lamine lan ngay tàggatoog waa El Vision Média lan ngay uh, avant tàggatoo lan ngay préparer instant sa carrière ndax bëgg naa tamit nga génn fës fësan waaw ñu waaj ñu ngi waajalaat parce que suba suba bu ñu xëyee war nañ continuer waat suñu entraînement nekkaat ci leneen mais nag daal di pour leneen bëggaat nañ bëre bëre waat parce que lañ journée bu toog bëre wuñ rek ñu ngi koy perte. waaw bëgg nga jàkkaarloo Dieng Kaïré mii ndax tamit dina la setaan nga jàkkaarloo moom xool ko say ñaari bët mu xool la ñaari bët nga wax ak moom tëkk ko nag mu daal di ñëw dëgg neexul. Dieng Kaïré ko wax doy na bu ko jëlee billaay walaay taalaay tarbindaa bi defal ko xiir gi dina ko xiir gi man moom xiir gi considéré ma man tarkindaa bi moom a considéré waaw café tu tux du ñu naan café Touba yi leneen li sa des yëpp ay ree la ma def. léegi lan ngay tàggatoog waa El Vision Médias nga xam ne tey euh, macha allah ñoo la seet si si banlieue bi ñëw fekk la fi nga xam ne fekk fi say doomu ndey fekk fi say xarit lan ngay tàggatoo. waaw xanaa di leen siyaar di leen jaajëfal di leen bëggee di leen wax ngeen gën a góorgóorlu yàlla baax na li ci kanam mooy dàq quoi te yàlla ndeysaan lépp lu la jox rek am na lu la deseel waaw li ci kanam nag rawatina bët dañ jàpp li ci kanam day day romb ba neex. parce que yéen moom wax dëgg yàlla waaw man boole naa leen ci sama bopp quoi barki maam Seeraam Fall ndax bu baax léegi xam nga fu ma tourné seen leen kon nag rafet na ba yegg si fii yal na yàlla defal jàmm ba lépp lu ngeen séentu seen télé bi suñu borom defal lu kawe seen njot ndax fi àdduna lépp benn lay tàmbalee waaye dem na ba cent romb na cent mu ngi dem ci leneen leneen bu weesoo loolu nag maa ngi jaajëfal ñi ma jàppale ñëpp ñëpp samay mbokk samay xarit samay am di jàmm Baay Faal yi nga gis si ginnaaw dañoo sonn dañuy sonn ngir maama Lamine barki yàlla Ousseynou Karbala lii yëpp bu amee à cause de moom la dëgg yàlla man yaakaaruma woon sama àdduna dinaa toog ñëw toog nii di waxtaan ak télé yaakaaruma ko sama àdduna mais lii bu amee à cause de moom la tamit maa ngi moom dundaloo lañ lu ne moom ñi nga gis nii ay maxu ay siidikaay yëpp maa ngi leen sant daal di leen gërëm waaw di nuyu suma xarit Baye Karim Mbacké Fallilou maa ko waroon nuyu au passage waaw di sant suma sëriñ nag sëriñ Abdourahmane mbake yal na yàlla yokki leeram te taas ñu di sant suma yaay mère Sène bu baax a baax a baax jàppale na ma ci combat bi ñaanal na ma dëgg yàlla ma ko gisee dama kontaan li jóge ci man dafa bëri suma benn nag maa ngi rendre hommage muy ama ambrage basse manqué na ma trop dëgg yàlla heure bi daan na fekk lépp ñoo koy defandoo mais yàlla jël na ko te laajuñu waaye àdduna nii la ki dem ragal yóbbu ko ki fi des ñeme bawu fi ku sa bés jot da ngay dem kon lii war mooy ñu ñaanal leen yàlla yàlla xaaral leen àjjana ñi fi des yàlla yërëm leen te yéexal leen maa ngi siyaar kullu di wax jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba bëgg naa la. macha allah yéen a ko déggandoo ci émission yaay kan ngeen si ànd sista Zeyna la puissance nee naa chaque jour rek xale borom jiit bi nii la koy defee tey ñi daal di ñëw seet si xale yi tarkundaa a nee naa damay daal di tàggatoo ba beneen rek daal di dem tëdd sama kawlal rek xool sama jiit kan la war a fi taat macha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek nee naa la puissance ba tey du bàyyi benn yoon mais ma am ku ma toogal mu nekk li nga xam ne mooy seexa maama la men Ousseynou wala Assane Assane euh, kee kan waaw démb ñu gis euh, sa seex doon bëre macha allah yàlla may ko li nga xam ne moo nekk ndam euh, démb nan nga yëgee euh, victoire bi nga xam ne démb feete na ko indi ko fii ci Bale bi. waaw dañ koy sante yàlla rek sant yàlla bu baax ndax nit moom mënul dara waaw jàmm moom day sabablu rek suñu borom loolu dagal dañ ko koy sante bu baax waaw di ko ñaanal nag waaw mu jëm kanam waaw loolu dong la mais du dara. victoire la. Euh, tey boo amoon loo koy conseillé ak loo koy wax ak moom mbër moom du ñàkk am loo xam ne euh, manqué na ci moom démb bi nga koy seetaan euh, am na loo xam ne manqué na ci moom tey boo ko doon wax loo koy conseillé. maam la mi conseillé. dëgër bopp xam nga <laughs> mbër moom am loo xam ne manqué ci dëgër moom def na ko mais lu mu dëgër dëgër bopp moom boo waxee day xam ne lii waxi nit la waaw mais moom amul amul lu mu koy ñaanal maanaam doomu ñaay kenn du ko ñaanal rëy bu du fana da nga koy ñaanal li ñuy séntu si mbër yëpp mu ngi si moom waaw ñu koy ñaanal rek suñu borom may ko gudd fan ak wér waaw allah ko déggandoo ba tey ma am ku ma toogal fii sama loxo ndeyjoor mu nekk ki nga xam ne muy doomu ndey li nga xam ne mooy mbër mi nuyu naa la. fay naa la soxna si. maa yaa ngi am maa ngi jàmm bu baax waaw. Karbala ñu gis la tey eh, yaa ngi ci combat bi nga xam ne eh, moom la eh, doomu bi doon def nga taxaw ci di ko dimbali di ko jàppale tey lan nga yëg ci moom ba nga am benn cofeel boo xam ne da ngay taxaw jàppale ko gauche jàppale ko droite. waaw loolu boo ñu si laajee dinañ sawar wax ndax Mama Lamine dafa nekk koo xamante ni xam nga suñu raq la ba pare dañoo yàgg ak moom buñ neexee sax ne xam nga si ñu ko def mbër ci lañ bokk ba pare mu déggal ñu xam nga jox ñu boppam xam nga nit moom ak ni mu toll bu la joxee boppam rek yow doo mën a def lu dul delloo ko sa bopp yow it moo tax ñu bu xewlee rek daf ñuy moom quoi ci ay bagage am la ñuy nekk ay mission am la ñuy dox macha allah yéen ko déggandoo waa El Vision Médias ba tey nee naa duma bàyyi benn yoon dañu may utal rek ñaar comme ni ma leen ko waxee neenaa naa euh, puissance xale borom jiit bi du ma sa bàyyi benn yoon ba tey ma amaat ay invité fii ci plateau bi ñu wax ma tey lan lañ loo xam ne yëg nañ ko ci Mama euh, nuyu naa la. waaw ah, fay naa la. macha tey ñu ñëw fekk la fii ci bésu Mama Lamine bi mu doon bëri démb am li nga xam ne mu nekk victoire bi. Euh, lan ngay yëg ci victoire bi ak lan nga boo amee looy wax Mama Lamine lan nga koy wax. waaw ginnaaw loolu bu ma nuyoo jullit ñëpp di nuyu ñëpp li may njëkk wax mooy dem ba nuy dem danoo am choc quoi si yoon bi am ay blessement yu métti ambulance del si leen dèjà ñooñu la ñuy njëkk ñaanal ba pare ñooñu lañu ñuy ñaanal ñu féex ba pare buñ si jógee nag doo ko ñëw suñu victoire waaw yàlla may nañu ndam loolu lañ doon ñaan te di xamal Mama mooy koo xam ne bàyyiwul kenn sit làmb ji à partir jàmm gën tarki ndaay non lijjanti wuñu mbindeef ku ñëw baax na ku nu am dañuy bëre. tey ñu gis la nga nekk ci ginnaaw Mama Lamine ay doomu baale yi nekk ci ginnaaw làmb ban yaakaar bi nga xam ne am ngeen ko si seen bër ba tey ngeen war koo mën a taxaw. waaw Mama Lamine yaakaar bi nu am si moom mooy yaakaar roi des képp ku fi yor roi des arènes munoo Mama Lamine Mama la ñuy doyloo ak Siteu di ko ñaanal yàlla may ko ndam dimanche bii di ñëw si kaw góoy gi. ñoon ragaluñu fu ñu bokk ay tarkindaa lañ. tey boo amee looy wax maamala mi loo koy wax na démb combat mi ngi ko sitaane am na loo xam ne war na koo rempli am na loo xam ne war na koo wàññi tey boo amoon loo koy wax loo koy wax. Maama Lamine moom instant yi wax dëgg yàlla combat bi démb amuma lenn lu moo ko ciy wax xanaa kay yokk mais du wàññi démb bari ñi maire yi dañ doon laaj naan kii mooy kan ñun kii lañu foral te xamuñu ko ñëpp Maama Lamine démb moo xar stade moo fa tuus waaw mooy bi la mbaala may sànq bu bees boobu la fa tojee ñu xar fa ñaar daan ñibbisi waa macha allah yéen a ko déggandoo ma am ku ma toogal muy euh, mbaalo euh, jarul sax ñu koy nettali waa Sénégal waa àdduna yëpp xam nañ ko muy tëggal li nga xam ne moo nekk Siteu di tëggal ki nga xam ne moo nekk Mama Lamine euh, mbaalo nuyu naa la. waaw soxna si maa lay fay bu baax di leen siyaar di leen wax ni dal leen ak jàmm quoi parce que ñun ñëpp dañuy topp gaa yi ngir maanaam Baye Fall gi ñu doon doonu loo xam ne dañ ñu koy jox wala ñu leen di topp wala yenn business bu ñu leen dooleel rek c'est parce que seen xol ak seen xalaat. maanaam gëmuñu leen lu maanaam nekk ci rek ba keroog ñu ciy génn moo waral ñu leen di topp mbaalo ñu daal lay gis ngay tëggal Siteu di tëggal li nga xam ne euh, moom moo nekk euh, Mama Lamine mbaalo euh, lan moo la motivé nga nekk doomu banlieue di taxaw li nga xam ne mooy xale yu banlieue bi macha allah mun naa ne su ma koy xool sax dama koy xoole ndem si yàlla si muy nongoloo nga xam ne dafa bëggoon banlieue bi dafa fonk li nga xam ne moo nekk banlieue bi ñu gis la bu génnoo banlieue bi da bëgg doomu banlieue bi lan moo la motivé ci loolu ba tey nga taxaw rek samp say ndënd ci banlieue bi ne doo fi jóge da nga jàppale doomu banlieue bi waaw am na maanaam Siteu sax leneen la ay mbër yi sax gars yi loolu leneen la mais man dama nekk sama yoon ku ci nekk yaa ngi nekk sa yoon mbër mi day bëre pour nekk ci stade bi di bëre di fayeeku mais man damay yor sama orchestre di jouer ay mariage ak ay ngénte ak ay jàkkaarloo man ci loolu laay dox ci loolu laay nekk mais maanaam boo gisee li tax ñun ku ci xewle rek day mel ni ñëpp xewle parce que ñun yee ñun noonu lañ mel surtout jàmm gën si Kambaaw ñun dañuy sot bu Siteu amee combat dañuy répété lu neex dem stade toj ko bu Maama Lamine amee combat ñu répété lu neex génne bagage yi ñu dem stade toj ko comprends nga lu Siteu fecc maa ko way lu a Lamine fecc maa ko way ak yeneen Baye Fall yi fi nekk waaw loolu la yàlla def waaw noonu la demee. macha allah ndagam euh, temps bi ñu mayoon mu ngi bëgg a jot lan nga yuuxu ndax bëgg naa nga yuuxul waa El Vision tuuti rek. Cheikh Jërëma Cembe yi sax yaa nga lambaay lambaay lambaay waa télévision sama gaañi nam naa leen liggéeyu ndey mooy añub doom seen yaay liggéey lii affaire bi ndey ci la waay gëm leen seen bopp dina baaxee sama xarito mbaa mere woo ma ndeysaan Moussa mere benn yoon macha allah nee naa saa ne rek nii laa koy defee waa El Vision Médias laa yéen ne ko déggandoo euh, mu am ku ma toogal fii sama càmmoñ euh, euh, sëñ bi nuy naa la waaw maa lay fay soxna waaw ñu gis na depuis euh, Mama Lamine di préparé combat ba tey yaa ngi ci kawam bàyyi woo benn yoon ba tey euh, démb mu doon bëri daal di am li nga xam ne moo nekk victoire bi bëgg naa tey nga wax ma ban sentiment nga am ci Mama Lamine ak ban mbëggeel nga am ci moom ba tax na macha allah ak cofeel euh, ba nga xam ne chaque jour rek yaa ngi ci kër gi di ko di ko dooleel di ko jàppale di ko conseillé aouzu billahi mina seytaani rajim waaw ginnaaw benn sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur bu wér a wér di a wér nag Cheikh waaw Maama Lamine waaw dinañ mën a wax ci moom parce que depuis bi muy bëree ba léegi ñooy ànd te ànd bi àndul àndul lenn lu àndu mbokku taalibe suñu rakk la ñoo ko mag mais ànd mbokku taalibe la ñu ànd ñoo yàgg ànd dem ay cant avant lu jiitu muy bëree ba yàlla dogal mu bëgg làmb nekk ci ñu ànd ceeg moom ba tey jii fi mu toll nii waaw xëy na dina am ñenn ñu bëri ñoo xamante ni dina leen xaw a jaaxal tuuti. waaw parce que ñun wax sax nekkul suñu waaw nekkul suñu nekkul suñu affaire daal mais li ma la mën a xamal ci Maama Lamine lu gàtt ku am yar la ku bëgg li muy def la ku am engagement la pour ñi xamul nekk na nit koo xamante ne nii ragalul fi mu jëm daal waaw ñun daal ñooñu ci ginnaawam di ko jàppale fañ nekkoon démb ak bërkaat démb ñooñu foofu waaw ba keroog lu yàlla def ñu xam ne lii la yàlla def. macha allah yéen a ko déggandoor nee naa doomu aadama boo ko bëggee xam da dem ci ay mbokkam dem ci ay xaritam ñu wax li nga xam ne moom moo nekk ci moom leen di ko seetaan. sa fii lépp fi lay leeree. liggéey rek a wóor. fii donc fii rek fii kese ci El Vision fii lay tàngee fii lay xoyom xoyomee du feneen maa ko wax. nit ku baax xam nga lu mu war ay salaat du ñu benn ku weddi bi euh, di def lu bari di wax lu néew. réew looloo koy doxal réew wax ju bari di ko doxal mais jëf moo koy doxal. soo bëggee lu leer nanga ko jàpp lépp fii lay leere xam naa ni ñii doomi réew mi lañ ñun ñëpp ñu ànd doo dem ca kaw laay lëla laaw lu ne fa nga kenn du ko jeex yéen laay béggee nit ku baax daa waram gis-gis ba mel ni ñoom yéen amu leen moroomee. ñaan ñaanal gudd fan ak wér. te xam nga àdduna booy bëreeg moom. da nga jël yàlla def ko sa entraîneur nga jël muñ def ko sa entraînement. yàlla comme coach ku lay gañe suufa ñu dàq muñ foofu tuuma ñu mujjee toog maa muñ te ñàkk waay wala dugg bett.